saaba al islam wal moom teewam ñëw ñu koy tuub waaw nga bokk ci kii ba waaye parce ce que waaw bismillah waaye kii de def na si saa si pot sëriñ Muntaxa ay waaye ay waa ji ay waa ji waaw bismillah mhm. mooy foofu noonu nga xamante ni fa nga tuub bu dee defar wàll mhm. maanaam ko googu noonu. ku ci dugg sax dafay yéen. ndax waxtu day fal. di fal ndeysaan wér na wér na wér na wér na wér na wér na moo tax man da xaaral ma ñëw moo tax moo tax ma wéral la ko général maa ngi tuub ndax maa koy jàng waaye maa ngi man maa ngi dem man sama jëm bopp te bëggu bëgguma bëgguma bëgguma bëgguma yàqu jotaay bi léegi yow bàyyi joosi man waxtaan wi daa ni moom moo ko de tey moom wax dëgg fa tema la hmm. barkelu tema la barkelu rek daal di yewe ko ndax man si ndax suñ baara moom ndax da nga see mën wax lu bari suñ baara moom duma ci mën wax lu bari ndax liñ naan li suñ saalu di wax naan lu lu ñëpp xam lu caa wax day doy waaw te njabootu suñ tuwaa gi damay déglu benn waxtaankat muy wax naan njabootu suñ tuwaa gi maanaam ñooy wane ñooy kéemtaani seen tubaa yu njëkk kii mhm. suñ tuwaa nag da leen a bëgg te liste ci ay kéemtaanam waaye njabootu suñ tuwaa gi da ngay xool ci mhm. saa boo xoolee mën nga ni sëñ Basirou moy ñentel doomi Serigne Touba ndax sëñ Moustapha la sëñ Fall sëñ bara nga di sëñ Basirou muy ñent waye nak sëñ bara mën nañ wax ni moy ñeenteelu doomi serigne Touba ci baatin ndax li dañu fàtte soxna Fatou Dia te bi fi sëñ Modou Moussa di tok ci la xilaafa mi ngi fi tok di doomu serigne Touba di taw waye dañ di ci njabootu maanaam kilifa yu magi yi duñu compté jigéen nga xamni ne Touba mo doon numéro 4 ci bureau ba te xam nga lu sëñ Moussa ka wax suñ co dari daa ñëwoon ngir aw daam suñ musa dari daa ñëwoon ngir aw dam sëriñ sering bi sëriñ bi ni ko toogal ba ëllëg nga jël benn benn sàmm sëñ tuwa sëñ tuwa mbir mi yëpp li ko waral mooy numéro 4 bi waaw wala déet numéro 4 bi la dem ndar keleemal ko boppam xaarul bañu ndax numéro numéro 4 dimbali ñi bëggoon ñu bañ a jeex l'islam jeex Sénégal te mu xam ne moom mooy dem tôt ou tard moom mooy ñëw mu teel a kelem mm-hmm. boppam di doon numéro 4 ba ñu reyee ñett mu dem doon numéro 4 waaw maanaam daa bëggoon a ñëw ngir aw daam maanaam mission bi suñ tuwaa jël moom la suñ mu ba pare ba pare suñ tuwaa dem ci géej gi 1895 ba pare di ñeenteelu doomu sëriñ tuwaa suñ tuwaa numéro 4 ba pare ngi mu ñëwoon moom ngir aw daam sëriñ bi ni ko toogal ba ëllëg nga jël beneen sàmm mm-hmm. dégg nga wax ji kon loolu loolu loolu danga nga ciy da nga ciy da ciy da nga ciy jàngee ni Serigne Serigne Serigne Bara moom dafa dafa dafa copier Serigne Touba xarfan bi xarfan waaye nag xam nga njabootu Serigne Touba yi jóge waaw ndaxte mhm. am nga kaat googu noonu maanaam moom kooku chiffre suñu maanaam moom la ñuy wax naan gis nga kenn suñu borom kenn hmm. maanaam suñu borom la moo hmm. moom mooy kenn hmm. waaye Serigne Touba moom dafa delluwaat si unicité boobu noonu Serigne Touba maam ngi nekk suñu borom bari la lu ne Hmm. waaye maanaam euh, sëñ Bàmba moom kenn la ci am. dëgg la maanaam te kenn googu noonu Serigne Touba moom moom si bopp moo bëgg ko kenn am. Hmm. ndax nag ku ñu koy ñuy wax di ko moom buñ ñu koy wax di wax wax keneen. Hmm. mu ne ëllëg dañoo euh, gàcce bu euh, kaw jahannam. na waaye mi ñëwaat si li nga naan dafa doon Serigne Touba foofu maam ñii naan maanaam maanaam doon wu ko mooy bi nga naan dafa ñëw ngir wuutu. yaa ngi wér na ah. wér na wér na waaw moom maam moom moom kennam googu noonu tamit dafay dafay lu leer mooy kaat googu ngay waxaat maam si kenn suñu borom dafaa du gàtt xam nga xam nga xam nga ku mel ni ku mel ni suñu fàllu dani woon bu ma bu bu woon ci man feneen fu mu wàcc ma xaaraale ko du loolu suñu tuwi wax mm-hmm. bu wàcc woon fi man fu mu wàccoon ma dem xaaraale ji ko waaye sëñ Basiru moom mooy mbégte bi moom moom mooy pay gi waaw moom moom moom ak pay la waaye kii dañ waaw sëñ sëñ Baara dañ koy yebal ngir mu ñëw indi bataaral sëñ Bara daa am suñ tuwaa doon sàkku ci yàlla suñu borom maanaam su may wax gars yi ne leen dañuy bàyyi sa baatin fële ndax ñun baatin gi ñun yegguñu fa mm-hmm. fu baatin gi féete mm-hmm. baatin ku la ko ëppalewul mën la ko wax sëñ ah, ko fan la maanaam dañuy waxtaane màkkaamay góor yàlla yi di wax ci wàll yi di wax ci xut bi di wax ci yu mel ndax mën nga noo waxtaane ci màkkaamay Serigne Touba mu daan ne mënuma ko ñu ne ko lu tax mu daan ne garab bu la suutum du la may ker fii rek surtout Sëñ Tuubaa mën a waxtaane Sëñ Tuubaa kon ku nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi Sëñ Tuubaa jëloon déggee ko àddinaam yëpp mën a waxtaan ci Sëñ Tuubaa mm-hmm. waaw waaye tey jii nii ñun duñu mën a waxtaan ci Sëñ Bara jëm ci baatinam maanaam li ndax muy mën di ku ñëw mu pes la dugal la àjjana yi nga xamante ni góor yàlla yi fi jaar yëpp wax ko yooyu ay baatin la yoo xamante ne ay kàddaam la doomu Sëñ Tuubaa la doomu Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa mooy l'incompris kenn du ko comprendre ma keroog ñuy dem ma xiyam moom il faut ñu dem ci kanam mu yàlla suñu borom mu taxaw tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boole ko si yàlla suñu borom mu tagg yàlla ba pare ñu xam kan mooy Serigne Touba xam ne amul mappandoo ci ko suuf hmm. yi nga xamante ni doomu Serigne Touba bàyyi nañu ko ci ko suuf man ci loolu laay gën di gëstu ci la laay gën di di di focus lu ci bari ndax bu ma juuse laa di ma mën cee wax hmm. sëñ Bara dafa doon koo xamante ni bi muy ñëw ci Serigne Touba daa fekk Serigne Touba toll ci degré jaamu yàlla boo xamante ni dafa soxla woon résultat sëñ Bara indaale ko dégg nga wax ji waaw ndax sëñ Moussa Ka nee na keroog ba mu ganesee ci daaru dunia keroog ba mu ganesee ci daaru dunia fii la sëñ bi ram mu xarlu bi fii maanaam ci gën ak addunaam la gën a adduna lépp sëñ Moussa Ka ci gën ak yàlla tàmbalee ram ca gën ak adduna sëñ Moussa Ka nee na keroog bi mu ñëwee keroog bi mu ganesee fii mm-hmm. si daaru dunia fii la sëñ bi ram moo xarlu bi fii xayri suñ dunia sëñ Moussa Ka wax loolu ci sëñ maanaam si te sëñ Moussa Ka lu mu mës a wax njabootu sëñ Tuubaa dëgg la mm-hmm. kon kon kon kon sëñ Baara bu ñëwee naroon na naroon na aw ci sëñ bi indil wu ko rambu mag ñu bari seen yegg ci yàlla suñu borom ñëwee ci gën àdduna ndax sëñ ñëpp xam nañ ko maanaam gërëmal mag ñu bari ci sëñ baara la jaare doon mhm. wax ko waaye nag li ci gën a yéeme José fii Touba Cheikh Omar Foutiyou Tall dafa mos a dugg xalwa di sàkku ci yàlla suñu borom ngir xam fan la suuf si gën a tedd ci kaw suuf ne ginnaaw màkkatal ginaaw suufu Madinatu Munawwara ak màkkatal mu karam ngir mën faa dem yeggale liggéey bi yàlla suñu bi Cheikh Omar mhm. Foutiyou Tall ñëpp xamoon nañ ni mu nekk kawoon punkal ci ci ci pays yàlla yi mm-hmm. yàlla suñu borom xamal ko ni suuf sa su ne moomoo ko te kii kay moom mi ngi ñëw ci jamono te mooy moom jamono te suuf sa Tuubaa lay tudd jabootam xam dugg ko te te chibre def ci liggéey bu yéeme boobu muy suufu Daaru Salaam ñëpp xam nañ ko ginnaaw suñu fàll bi suñu Modou Moustapha soxna Fadja ak yu ni mel moom képp moo ci ñëwaat dem du Tuubaa ndax fi ñu denc Serigne Touba tey nit ñi dañoo foog ñu jàkka la du woon jàkka la fi ñu denc Cheikh Ibra foofu la Serigne Touba njëkkoon la rëdd ab jàkka foofu nekkoon si néegub soxnaa bi ndëkkaloo waaw ah, Serigne Touba Serigne Touba waaw Serigne Touba woon ko Cheikh Mouhamad Lamine Bara foofu la gane àdduna fi di bërëb bi ñu denc Serigne Touba Cheikh Mouhamad Lamine Bara wàcc fa ci suuf si gën ci suuf di wane ak ak doon nar a doon donnuwu ko dañ naan donnu sa baay doon sa baay ko gën mm-hmm. waykat yi dañuy faral dañuy faral di ko way kon moom dafa ñëw jël Serigne Touba mënu fi woon a def lu passé quatre quarante cinq ans mm-hmm. Cheikh Cheikh Modou Moussa Cheikh Mouhamed Lamine Bara waaw mënu a def lu passé quarante cinq ans laaj ma lu tax ndax quarante ans dafa doon quarante maanaam gis nga giiru quarante ans googu Cheikh Modou Moustapha bi mu nekkee fii ci Kayal moy dëkk bi mu waré ngir dem jaareem fekk ji ba sëñ tuwaa bi fi ko tedd ki defee nonu mu def manam ñibi ji àjjana bi mu déparé bi mi jógee kayal am ñen fukki at ci kaw suuf ak ayu bëss 40 ans 7 jours une semaine hmm cheikh mamadou moussa da am bat bu ko fi doon faral di wax nan ko bis bo amé ñen fukki at ci kaw suuf dootoo amati kilifa kon koku amone mission bu ko do xaar ginnaw 40 ans yi ñu ko jël 27 45 quarante cinq la fi hmm Serigne Touba Khadim Rasoul bi muy bëgg jël mission bu géej gi mi ngi nekkoon ci fanweeri at ak lu topp mu dese woon ko ñaar xaw ma ñetti at bëgguma wax ci juum yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam don ko go don ko warn don ko don ko nuñ ko mëna a manam don ko don ko ndimbal la sax nak ndax ndax ko ñewante won ndax bañu bu dem ci mm-hmm. dandi ko bib grade grade bu xuddu sama daan ko waruñu ko jox ku am ñew ku amul ñeent fukki at daan ko jox naa la ko bis ni ki tey faral nañ la ñaari at yi des jox la ko tey avertir jërëjëf asmaaw mhm. kon kooku quarante ans ngi waat noonu yaa ngi ñëw joosi mhm, mhm. yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi muy nekk nabi bi muy nekk nabi bi muy nekk rasul yonente bi ndax muhammadu kooku mooy nit ki yaa ma koy faral di wax naa ma rasul mooy mooy mooy mooy identité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ruu bi ne ci hmm. moom maanaam nga xamante ni ginnaaw yàlla suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma koy faral di wax saa su ne hmm. Hmm. ban âge ban âge la ko jëlee du quarante ans beneen sëriñ Touba daa mënu woon am ci kaw suuf bu woon day yem def fi li fi def lépp bàyyi fi jàmbaaram yi mu fi bàyyi ay sëñ Modou Bara ay sëñ Abdou Aziz Bara ay Cheikh Sidi Moukhtar nga xamante ni sept ans mel na ni cent ans ci ñun kooku mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Diossi ndaxte boo xoolee bàyyi sidi bi ngay génn maanaam xam ne bàyyam dund na téeméeri a lu topp te ki ko ñaanal maanaam kooku quarante cinq ans sa la yàq wér na yaa ngi nga xam ne kon kooku bu bëggoon a maanaam tey jii ne dund lu ko ëpp kon kooku amoon na ñu mën koy na yaa ngi dégg waaye fi nekk rek yaa ngi dégg ak ñoom nañ koy def wér na wér na waaye yërmande ji nga xamante ni si moom da ko am. Hmm. yaa ngi dégg maam hmm. tey jii hmm. eh, eh, tey ñun ñëpp dañuy jàpp ni maanaam kii rek maanaam tàng bi wala wala wala wala wala wala maanaam. dafa am ma la ci jox. bisimilah dafa am góor yàlla bu mës a dugg Touba. bi mu moom xam naa malchance par malchance ñàkk wërsëg weesuwul nga bëgg a def lu jëm la xalaat boo xalaatoo ko mu Cheikh Mouhamadou Lamine nga xamante ni bu mu sànni mer sax lu ko jege day tàkk yëppit am bés am ambus, am bés waaju am bés ab ab njublan bu mës a dugg Touba ndeysaan ndax xam nga Touba demoon nañ ba jëmmi jamono police newu fa woon loolu ñu xam Touba dëgg Basiru Waat mi jotaay bi xam njaarim la dëgg xam ne Touba poste de police amu fa woon bi bu fay am yàngul poste de police gendarmerie ak yu ni mel ndax Touba moom maanaam yéeme na li waaj doon wax naan fraude bi ajjana ju ndaw la Mm-hmm. waa ji ni kon su may sàcc maanaam jëmmi sàcc jooju suñu sàcc maanaam euh, waa ji góor si sàcc moom su ma koy def nag a dem Touba ndax dégg naa barabi doomi Sëñ Tuubaa yi dañ fay def ay matériel yu am valeur te kenn du ko surveillé mm-hmm. bi demee dem fekk fa góor yàlla yi xam nga seen bëkk néegi ya fay nekk doon ay mag bi mu ñëwee dugg biir barab Cheikh Mamadou Bara di bi tappi yi nga xamante ne njaboot gi dañ ko jëndoon jëlee ko ci dëkk naar yi mu xamoon ne amoon na valeur jamono jooju mu xamul loxo ba ko jox te moom gi te moom te te te ñi nekkoon Touba yëpp bés boobu seere nañ ñi ngelaw lu ni mel ak asamaan suñu xonke mosuñu ko gis ci seen ci seen ngir dund te kooku maanaam ci ginnaaw Cheikh Mamadou Lamine Bara la ko tooñ kon joosi baati lu doomi soxnaa ngi noonu na na la maytu yow mi ndax doomi soxna nga de baatinu baatinu doomi soxnaa ngi noonu borom xam ne dañuy wax nag baatinu doomi soxna mi baatinu doomi soxna ci ginnaawam la gën a soxaree ka fi kanam sama sëriñu baay sëriñ sëñ xaarim kan domi sëñ bakke kan dafa la ci sañ cub sin ginnaaw jaksaaw jaksaaw moo nekk ginnaaw pir waaw ñoy sama sëriñu baay dana wax naan dana wax naan maytu len maytu len maytu len walu bu deba àdduna ndax lu walu du man fi kanam fi fi dunya bu jégué ya suñ borom xana da koy gëna man jaar jam na mana wala weer na lu walu mën rek suñ borom bëgg ko mën loo te ku ne fi dunyaa boo nekkee ci bambel bi gëna a jege yàlla suñu borom ndax lépp luy kiiraay baatin yi dañ koy lëbb fii ci dunyaa lépp luy kiiraay baatin boo duggee ci bambel gis ko tax nit ka bu faatuwul du gis malaaka nit nit normal fi rek faatuwul fi rek ruum jekkul ngir dem mbaa mu dem ba noppi du gis malaaka mm-hmm. ñun ñi amaana keroog bu suñu ruu di jóg la ñuy gis malaaka ok est ce que waaw ndaxte moom waaye sëñ baara moom da ko daan gis fi nekkee mm-hmm. te nee nañ moom moom sëñ Abdou ñoo ànd. nit normal laa la wax. baas ndax boo dee sax normal ndax dañu ni sëñ Malaay dañu maam sëriñ bi moo moo moo moo nit. wër na ay ay sëtam ñuy nduru nit di def. dëgg kaweeku nit di def. ñi nga nit. ñun dañ leen foofu. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaye foofu. Mm-hmm. maam moom moom mu àndee sëñ sëñ Ablaat mm-hmm. maam dafa génnaat mm-hmm. ñu sëñ Ablaat nañu nañu te ñu ngi leen di yàqal ay xéewal ñoom sa dëkk bi ngi dégg mu ne ko jógal ñu dem bi ñu bi ko ah Mbàkke ñun ñu ngi eh, gi mu ne ko déet ñëw ñu dem ñu dem ba un kilomètre mu waaw kay mawti moo waroon a ñëw waaye rus na ma ba fi ma nekk maanaam ya? di ko jël wër na fi mu nekk bu ñu delluwaati si dëkk bi nii bu ñu demee rek dinañ ñu tàggee si ñooñu doon ñu toggal daa am koo xamante ni si dafa waroon dafa dafa waroon a dafa war a dem lakk nga dafa saa waroon a jàpp wër na gis na faal loolu na noonu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga xam nga xam nga cheikh lamine josi josi may bëgg may bëgg foo xam ne nag wax fa yàlla bëgguma ci balaa nga faa dugg bëggoon mu dugg si yi es kay ndeysaan ndeysaan murito baaraay madulamin madulamin bara baara ku Bara way am ndam baari sahaya. murito baaraay madulamin madulamin bara. aziz sama may sunu mbër baari murito baaray Madu Lamin Mamadu Lamin baara baara ku way am ndam baari saxaaya murito dunu duguluy naw jëm kaw dunu duguluy xuusu ci tim ndox otoraay Tuuba lay def baari saxaaya murito dunu duguluy naw jëm kaw dunu dugg luy xuusu cim ndox otoraay tuuba lay dem ba aristaxaya murito jaara jaaram ma jaara jaaram ma cheikh si di muxtaar borom juróom ñaari at yaa ngi mel na ni def na fi xarnu ba arisa xaya Murito Baara Modou Lamine Mamadou Lamine Baara Baara ku la way am ndam Baari Saxaya barakatul lazil wujud wal xitam xar wa jabalawu lanaatun min xitam barakatul lazil wujud wal xitam فقد وجب لولنا من ختم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي بلا مخالفة ملك الذي قيام بنفس وجب لو إلى كلية خالق alhamdulillahi taala wate kamaan xamsuti walwada liman lawa qurat wal irada wal himma hayati ibada له خرة والإرادة والهم مع حياتي إبانة لمن له زوج كمال والبزر ما كلا من كل سر حي هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بالقصور لم يوأت هتم ولا ولا فناء للذي من الحديث رب الورى ليس له تمازن ولا انتقال بل له ممازن حملي لباخ جلعت عندي وها توالد وأصل الودد ملكنا لم يكن أرسل أو كرا حسن له وليس ينكر أحمد من جهل وموت وزمن لم تنو وقد خفاني عنه نفعني الذي آمن وبكوا كل ممكن وتركا حديث لمن كفى كفى شركا لا رب هو سوى هني لو تكرما أداه رسولنا نبينا محمد عبد الرسول السماء سمت هما أصيب بأمانات يصيب لو بتبلي إلينا كذب يخوض من خيانة وكلمة آخر وخدمتي لها من خدمة يخوض من خيانة وكلمة آخر خدمتي مسمى محمد بشر من له خدم كرسله مخدما خسائر ومنزل الشفاء والدواء